salaamaaleykum mbokki Sénégal yi rawatina mbokki mbuur yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen présenté ki nga xamante ne que moo jaar fii nekk Daouda Dieng nekk foofu ci marché central macha allah xale bu mën a daggatee xale bu mën a coupe ma di ko présenté waa mbuur yëpp waa Sénégal képp koo xamante ne que bëgg nga ñëw li si moom nga dem foofu ci marché central nga fekk ko mu defaral la ba mu baax boo bëggee li nga xamante ni que moom la ma defal nii di taymaan macha allah ñëpp bëgg ko jéeg yi bëgg ko lool di ko jaagar jaagare seen biir ka boo bëggee tay mu defal la tay baas toq tay baas macha allah marinière xale yu góor yi nga xamante ne que ñoom ñooy dox si Abasanzo boo daagoo foofu ba si ba ma santra nga laaj ki nga xamante ne que mooy Daouda Dieng sama doomu baay xale bëy ba dee ma defaral la ba mu baax kubal la ko bu nice bu am solo ñëpp kontaan ci yow.